asalaamaaleykum téléspectateur bu internet bu info rewmi point com mbokk yi mu mel ni ñu koy defee saa su ñuy itam seen jotaay bu am solo bile di seen jotaayu xaa mu mel ni ñu ngi dellu dellusiwaat fii ci gox bu sell ci bërëb bu sell bile ci diwaanu Géejawaay en face lycée Mame li Mamulaay ñu fekk si waat si jëmm ju baax ju sell gile di El Hadj Modou mbokk ñu fa seen am ak moom jotaay gu am solo gile balaa ñoo def dara dañuy yëkkati kàddu gi daal di koy jox mu daal di nuyonteeg téléspectateur bu internet bu info réew mi El Hadj Modou Cissé asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu. wax dama auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wala hawla wala quwwata illa billahi alil asim. rabbi israh li sadri wa li amri. waxlul xuqdatan min lisaani yafqahul qawli subhanaka subhanaka laa xilma lana illa xalamtana Mouhamadul Amin Muntaxa nu ngi lay delloo nuyu ak siyaara nekk noonu di nuyu mbokk info réew mi jiital si kilifa gi Babacar Ndiaye Soda ak équipe bi mu yëpp di nuyu tey siyaara it foo xam ne suñu kàddu àgg na gannaaw bi nu siyaara ñëpp si saxru ramadan al mubarak di ñaan yàlla nangul nu sunu koor nga xam ne natija ba mooy laxalakum tattaxuun yàlla may lu ñu ñëpp nu am natija taqwa Mahamadul Amin loolu ma nekk nuyoo bi. jërëjëf El Hadj Modou ci kàddu yu am solo yi lee El Hadj tey ñu ñëw ci bunt bi nga xam ni muy salaatul tasbir mhm. mu mel ni waxtu bi dafa mel ni waxtoom la. Mhm. waaye tamit ñu bari dañ koy faral di dégg. waaye tamit bëggoon nañu xam salatul tasbir euh, njariñ gi waaye itam nan lañ ko war a nan lañ ko war a defee itam. barakala Mahamadul Amin ndax danoo nekk si weer boo xam ne weeru bonis la te fa tabarakallah naafi lay doon boniis muy bonis ak bonis su naandee te barakala euh, day gën a nekk xéewal ndax weer la boo xam ne dinaa di wax ne ku yàlla may nga fekk ko war nga see occasionné wu ba. duy si sa ndab yiw ba mu fees dell fa tabarakallah waaye raxas lépp loo xam ne taq-taq la te borom benn ñun danoo dëkk di koy tooñ waaye saa yu nu ko jéggaloo mu jéggal nu te salaatul tasbih du lenn lu dul bàkk yàlla ak tudd yàlla te alxuraan wax nañu wala sikrullahi akbar wallaahi yaxlamu ma tasnaxuun alxuraan wax nañu tamit ala bi sikrillahi tatma innal qulub mooy tax ku lay gën di tudd yàlla rek fa tabarakallah yàlla danay def xolam taqwa dana say nekk imaan it dana say nekk ihsaan dana sa nekk waaye ijaaba yi dana sa nekk naka noonu yi dana daje njëggalu borom bi te muy julli goo xam ne lépp luy rëcc rëcc soo ko defee si mbaaxu yàlla yàlla daf la koy effancel muy loo xam ne dañ ne képp kuy julli war ngay occasion ne wu sa giiru dund même bu dee benn yoon nga def ko. wala soo ko mënul bés bu nekk it nu ne semaine bu nekk nga def ko boo ko mënul semaine bu nekk it weer bu nekk waaye soo ko mënul par weer at bu nekk lu bon bon nga mën koy def benn yoon muy julli boo xam ne lépp tas bi ak tak taxalil ak takbiir la muy fa tabarak laa julli goo xam ne ñaari rakk lay doon rakk bu si nekk da ngay def da ngay sàbbaal juróom-ñaar fukk ak juróom si subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rakk bu njëkk bi boo defee fatiha ba pare ak saar ba nga say teg nga def subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bala soobee mën nga sodalit wala hawla wala quwata illa billah si misaal boo defee fatiha ak saar danga koy def fukk ak juróom si taxawaay bi bala ngay rukkoo nga rukkoo it subhanallah walhamdulillah wala akbar nga def ko fukki yoon nga si gisi rukkoo bi defaat ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga sujjoot boo sujjootee tamit fa tabarakallah nga def ko fukki yoon nga jóg si jógaay sujjoot bi def ko fukki yoon sujjootaat sujjootu ñaareel def ko fukki yoon nga doog a jugaat taxawal sa ñaareelu rakka soo seetee rakka bu nekk am nga si mm, takbir ak tas bi ak tahlil am nga si juróom-ñaar fukk ak juróom mel ni ki soixante quinze boo ko multiplier par quatre daf lay jox trois cent muy ñetti téeméeri sàbbal yoo xam ne bii def nga ko si julli gi muy julli goo xam ne dañ boo ko defee lépp lu nekkoon rëcc-rëcc fa tabarakalaa yàlla dala koy faral te it fa tabarakalaa yàlla dana la yokkal iman ak ihsaan ak ijaaba Muhammadul Amin loolu daal sukkaru koor la woon boo xam ne xam naa ñu bëri sax daje na moom ñu bëri xam nañ ko ñu bëri dégg nañ ko waaye nu koy fàttali fàttalante rek nu koy fàttalante mbokki julli ji nga xam ne nu ngi topp info rewmi point com jërëjëf El Hadj Modou Cissé ci chahru ramadan al mubarak tabarkàlla mu nekk loo xam ne la am solo la ni nga ko waxee tamit mu nekk weeru bonus mhm. waaye tamit man foofu man léeg ma am tuuti lu ma lay euh, toftal foofu tuuti di di ko laaj ndax askan bi tamit dañ koy jariñoo lool mhm. euh, gis nañu muurum koor mhm. léeg-léeg ne sa euh, am na ñoo xam ne benn jamono mën a nekk sarax ci ñoom rëkkal nekk sarax ci ñoom te du ñu xam ban jamono la ñu war a génneel murum koor ak murum koor lim bi nga xam ne war nañ ko génnee loolu tamit am na ñoo xam ni ba léegi itam dafa nekk jafe-jafe ci ñoom koor lu nu aj ca diggante asamaan ak suuf ba lay àgg si borom bi rek muuro koor moo koy àggale boo gisee mooy day raxas yenn tilim tilim yi boo gisee saddax am solo mooy rëcc rëcc yu bëree bëri fa tabarakalaa daf koy faxas bi nag sunna la boo xam ne bi képp koo xam ne jullit la rek daf koy war génn moo xam mësër na moo xam mësërul ne dem nañ ba si surga ba nga xam ne da nga ko yor sax ñaare jaadu na nga génne wàllal ko ko muy boo ko doon à peu Eh, luy jege ñaari kilo c'est la nga xam ne bi moom la réew moomu di dundee moom lay doon ñu koy fàttali ñëpp it boo gisee ñu bëree bëri xaj na macha allah mbokki sàmbeen yeeg ndaween yi ñu ngi def seen i itte si ñawu julli gaag ñu ngi def seen itte si ganaar yéen war a jënd yëpp te fa tabaraka la ku liggéey fanweeri fan di si yaakaar fay goo xam ne bii lu koy fay nee na du ma yebal kenn pour mu fay la man maa la koy fayal sama bopp kon lépp lu gën a mën a laabal lool rek da nga war a gën a paseefu loolee xam naa ku ko fàttewoo rek nu fàttali leen si ne macha allah mooru koor sunna bu dëgër dëgër dëgër la pour sakkoor yeeg si borom bi nga xam ne macha allah dossier ba complet na àllëg borom bi woo fay fayal la ko boppam faaw wat nga génn muuru koor na koy fàttali julli yëpp Mouhamadul Amin. El Hadj Modou Cissé am na solo. Euh, mu mel ni itam euh, dëkk bu ci bari dañuy jàpp ni xëy na réew mi fii ci diwaanu Sénégal euh, jàpp nañu ni xëy na ceeb gi ñu dundee moom la gën a xam. wa ilaa tamit ndax mën nañ ko soppi li nga xam ne wàllu xéewal muy koppar xaalis. mën nañ ko soppi xaalis Mouhamadul Amin ndax lu si sallallahu alayhi wa sallam mm, jublu mooy bés boobu jullit yëpp feetu kon tegtal la si ka nga xam ne bi macha allah woor na ba war a worite korite amul lu mu dundee fa tabarakalaa nga bégal ko loo xam ne bi dana mën a feetu comme jullit yëpp te defe naa léegi macha allah muy dugub muy ceeb muy lu mu mën a doon soo defee njëgg sa xaalis ka koy jox dana gën a nekk itte si moom Mouhamadul Amine jërëjëf sa téléspectateur bu internet bu info réew mi point com gis ngeen buntu yam solo yi El Hadji Modou Cissé moom la ñu fekk si waat fii ci diwaanu Guédiawaye en face lycée Mame Limamou Laye mbokk yi euh, ci jotaay bu am solo bi di jotaay Wadduha yaakaar naa ne dootuñu ko présenté adduna bi ñëpp itam dañ koy bàyyi xel saa su di ko ñaanal yàlla bu baax El Hadji Modou ñu mën nag ñëw dugg ci li nga xam ni euh, mu nekk loo xam ne lu sunu borom tabarak wa taala itam euh, dëgëral la mm-hmm. muy wàllu néegu sëy mm-hmm. ni koy faral di waxee dañu gis ni léegi jamono gi tàggoo yi dafa bari mm-hmm. lan moo waral yi waaye ak saafara gi nga xam ne war nañ ko war a mën a indiwaat ci biir néegu néegu sëy yi eh, fa tabarakallah yal na yàlla sàmm sëy yëpp nan doon wax rek ne sëy baas ba mooy ma mawadda ak rahma léegi day mel neex day xaw di nuru alxadawa wax baxda neex néew na lool Mouhamadul Amin nga gis léegi couple bu am ay at seen ménage commencé wul ak xajam wala amul ay difficulté néew na néew na surtout ñun ñi nga xam ne macha allah yàlla dogal na ñuy dégg lu bëri. Mm-hmm. da ngay togg ak nit da wax ne ñaari weer ñii ne la eh, juróom benn weer te léegi macha allah du nu jaaroo du wax ma wax eh, fa tabarak laa yooyu yëpp doon lu doy waar mu mel ni kii sëy santaane borom bi la te lu nu sunu borom sant rek am nay sart sart ya nag mooy kanu kay soxna eh, fa tabarak la xam ne soxna la waaye kay kilifa tamit yor jikkoy kilifa te yor jikkoy kilifa bokk si yu bëree bëri bëri yoo xam ne bii na ma sama mbokk góor yi baal dañuy faral di koy def ak soxna yi si di leen jéem a won seen bopp danga xam ne du ma sama room da nga xam ne nangam te dama koy waxee rek ne jigéen dooleem bëriwul te koo xam ne macha allah dafa bàyyi ñëpp nga nekk yaakaaram nax ku yàlla def nga nekk ak eh, jëkkër rek mooy sa yaakaari àddina nax macha allah eh, sëf waaye si moom nga koy yéene fande mu mel ni ki te dinaa di wax na lu bëree bëri soxna mënu ko waaye soxna yi nan bu leen di émancipation xaw ma leen ko waxee yóbbaale wala parité bu mu leen di yóbbaale benn yoon ndax ari jalo ari jalo xaw ma naa la nista nan di nangu nu yilif leen eh, fatabarak laa nuy bañ ji santaane lu kenn mënul. waaye jëkkër tamit di bañ di gàntu lu nu man loolu def naa su amee xol yi laab nu yéenante jàmm mu muslu tamit ndax dinaa di wax ne sëy yu bëree bëree bëri bëri la koy xajamal ñaari mbir la ndax dinaa di wax ne xol lu sa njëkk rekk tëse te lu njëkk sa xol rek mooy dëgg def naa ku si nekk ka nga tànn da nga bàyyi ñu bëri wala da nga bàyyi ñëpp ne kii la moom li mu bàyyi ñëpp nangul la ko kon fa tabaarakallaa loolu su commencé am leneen rek ñaari mën nay nekk mbir lay nekk mbir nag na ma koy waxee toujours rek si ne nan di muslu nan di ñàkk waaye nan di aar tamit mm, ku si nekk loo yor te bëgg ko na nga ko ñàkk na ko aar waaye fa tabarakallah eh, ba lenn sayaatin du say mën di dugg te baraana ànd yoo xam ne eh, la koy xajamal loxo nga sa fa tabarakallah ndax ki nga xam ne macha allah eh, mënul woon bu la déggul woon xelam du dal. te léegi sooy wax ak moom say kàddu leneen la koy saf mm-hmm. fu tabarak soo ko jegee macha allah beneen odeur nga koy jox beneen xet fu tabarak soo ko jegee tamit soo ko laalee fu tabarak mu mel ni cëram yëpp danooy dee loolu yaa quelque chose Mouhamadul Amin e, kon yàlla jubal sa yëpp xam naa allahu jaamihul wadud mm-hmm. danaa ko may rek képp ku nekk ak nit te bëgg macha allah seen diggante mm-hmm. mu doon luy sax ba faw ak cofeelit sax sa jéem la xam siifram rek nga di koy sikkar si allahu jaamihu waddut <laughs> yàlla mii nu boolekat dana saxal cofeel sunu diggante loolu lay tekki loolu may naa ko ñëpp Mouhamadul Amine El Hadj Modou Cissé mu nekk loo xam ni am na solo euh, buñ ko waxee itam ngay xaritu njaboot gi àdduna bi yëpp nangu ko mm-hmm. euh, dañu gis tamit foofu rek ci bunt boobu euh, El Hadj Modou léeg nga gis te ma koy ni ma koy waxee mag ñun suñu mag ña mm-hmm. da gis dañ nañ denc soxna ba ñu daanaka bu ku nekk denc sa morom amaana waa ay soxna te jamono gi mu nekk loo xam ne lu jafe la ah, kenn mënut lu gis li ni mel mm-hmm. saafara googu xam ne ñoom daanañ ko téye kër gi njaboot gi ndax loolu ba léegi El Hadj Modou loolu mën nañ ko dimbalante ak jaamu yàlla jamono gi ndeysaan lu ndax la fi nekkoon a ngi fi ba tey Mouhamadul Amin te noonu nga ko waxee rek mag ñi da nga daan gis néew na nga dem kër mag te benn soxna rek di fay nekk ay soxna la te macha allah ñëpp ay juboo waaye ñëpp ay nooy bootu sa gannaawam lii xew léegi tànnaas yi xew ak mbiru famille yi xew si doomu baay ak yeneen ak yeneen yu bëri daaw koy dégg. Mm-hmm. loolu day dellu si li doon wax rek ne boroom kër gu nekk war nay jéem a doon boroom kër. te bañ a doon surga ba fa mag fa tabarak la soo doonee borom kër war nga la nga yilif yëpp macha allah nu nekk si sa suuf waaye nu di lay déggal nuy topp say bëgg-bëgg di bàyyi say tere te yooyu macha allah lépp lépp lépp mën nañ koy am si ñaan ndax jullit amul lenn nag lu du ñaan surtout nag téere bu mag boobu nga xam ne mooy quranul karim danaa simay waat suratu naj mi rek macha allah képp koo xam ne bind na ko ba mu jeex su ma nee am xobi banaana mu baxalaale ko ak moom mu jël ndox boobu toggale ko ak loo xam ne njaboot gi yëpp dana si mën a xewlu fa tabarakallah yàlla dana def mahaba ak moo war da seen diggante ñoom ñëpp yaa mutiixu soo ko calculer day tolloog latif moom it képp koo xam ne ut nga fur wi jënd nga fur wi nga jàng ko 129 nga jox ko sa njaboot nu xewlu ñoom ñëpp macha allah dina nangoo bootu tey ñoom ñëpp danañ am bëgganteeg cofeel seen diggante Mouhamadul Amin ndax day am solo eh, kër macha allah xol ya ànd nu yéenante jàmm ñëpp it nangoo bootu sa gannaaw kilifa ndax kilifa moom macha allah kilifa fu mu bëri rek eh, tànnaas am fa moo tax kër borom kër war a doon kilifa macha allah ñay soxna ak ñay njabootam ñëpp nangoo bootu. te loolu nag borom kër gu koy perte rek macha allah eh, danay am jafe-jafe. ndax ngay tranquille mën nay jafe mm-hmm. te tabarakallah si liggéey bi te loolu su bëree loolu macha allah mën nay jur yeneen i tawat ndax dinaa di wax ne tawat yu bëri léegi mu ngi sosoo si mm-hmm. eh, eh, xaw ma mm-hmm. Eh, ñàkk nelaw yu manqué yooyu tabarakallah su bëree si nit rek du ñàkkat mu jural ko yenn jàngoro yi yooyu yëpp nag macha allah jullit amul du ñaan nuy ñaan yàlla jubal sa yëpp nax si sëy bu jub macha allah si la njaboot gu barkeel njaboot gu yiw di sa lañ koy yaakaare te lépp àddina lépp àddina njaboot gu baax njaboot gu yiw moo si gën kon na ngi ñaan yàlla barkeel sëy yëpp yàlla dàq seytaane ba nga xam ne macha allah day dëkk di doon mahaba ak mawada fa tabarakallah yàlla dàq xadawal baxda eh, dina koy yàgg di wax si mission Wadduha mm-hmm. doon ko may sama mbokki góor yi ña leen ku si xëy di liggéey dinaa leen may bayre bu mag rek boo yéexee rek fexeel ba sa soxna ree bégal <laughs> ko ba mu ree bala ngay dem fa tabaarkalla journée boobu loo loo utti rek dina yomb benn soxna mu ne ma loolu daal ba nga ko waxee léegi eh, dama ko enregistré toujours rek ma koy <laughs> ma koy tegal sëñ bi ndax ma koy bàyyi xel <laughs> yàlla na yàlla dàq seytaane yàlla leeral ko yëpp Mahamadul Amin. Mhm. jërëjëf El Hadji Modou Cissé yaakaar naa ci buntu boobu buntu néegu sëy daanaka rek tëjoon na jotaay Wadduha tabarkàlla waaye tamit am na yeneen yoo xam ni itam dañ ci gën a ñëw euh, di leen fàttali tamit numéro baa ngi noonu affiché itam ni ñu koy waxee ci euh, bar bi waaye tamit euh, lépp li ngeen soxla ci information ci El Hadji Modou mën ngeen a def ñetti w point point org lépp rek mu ngi foofu incha allah bu leen fa duggee a maa ngi dugg nag ci euh, phénomène bi nga xam ni dafa tàmbali di yaatu lool. Mm-hmm. muy euh, euh, wàllu léeg nga dégg ñu la néew kattan. Mm-hmm. léeg nga dégg ñu la impuissance sexuelle ci wàllu kaddu googu. Mm-hmm. mu mel ni dem nañ ba nga xam ni tout tànk yi nga xam xamuñu xamuñu ko woon sax dañuy commencé di dañ kumpa. te mosuñu la dégg nga wax ci El Hadj Modou Cissé loolu bëggoon nañ ci tuuti tuuti itam nga leeral ñu ci lu waral li ni mel. wallaay su ma juumul war na am ñetti at wala ñeent émission Wadduha am benn mbokk wowoon ma direct na ma dama la doon laaj loolu lan lan mooy garabam ma ne ko loolu de dama ne woon duma ko mas di wax si penc ndax laa dama foog ne waxul te boo seetee léegi macha allah waxkat yu bari de moom rek la ñu jël tem te dinaa di wax ne nit lu mu dégg rek mën na koy essayer te ki nga xam ne bi ay atam bëriwul amaana te kooku bi ma ko laajee ñaata at nga am bi ma wooyee sa ëllëg sa mu ngi ne mu naan ma vingt-deux ans mais ki nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar la am di commencé gëstu lan mooy yokku kattanam kooku xam nga ne su demee ba am ñeent fukki at moom mënatul am garab kon tegte la si ne nit loo koy wax wala nga di koy wan rek dana ko dañ dañ kumpam mu mel ni kii sama xelaat rek lay wax nag doonul woon lu penc lu ñu war di waxtaane sa kaw def na fa tabaarakalaa la nu si am na lu nu si yàlla may ko ubbi wadduha point org du ñàkk dana am loo fa fekk si loo xam ne lépp sa loola lay dox waaye noonu ma ko waxee woon noonaay continuer musuma def émission Wadduha ba biral loo xam ne bii lii su ko nit jëfandikoo daf koy yokkal kàttan wala lu jëm si mbiru néegu sëy fa tabarakallah danoo yéene woon di koy yàllu mm-hmm. koo xam ne bii woo nañu nag lanu sëy laaxaye birante ak moom nga xam ne man ak moom lay doon waaye la ngay wax si rajo nga xam ne soppay Mara Cissé macha allah fu ne la si àddina fu nu la gis wala fu nu dégg na yaa nga fa danañ jéem a dindi kumpam danay xaw di am sew yenn saay sunuy waxtaan nu koy def baas si loolu waaye yàlla dénk na nu sirlu na nga xam ne bi macha allah day dox bu baax si loolu lu mu lu muy xuwa ku dugg si Wadduha point org fi tabarakallah da nga ko fekk dinaa de wax ne secret wa yasidkum quwwata ila quwwatikum te alxuraan la yàlla denk nañu ko te loolu lépp fa tabaarakalaa day dimbale góor si day dimbale góor fa tabaarakalaa Mahamadul Amin tabarkalla jërëjëf euh, téléspectateur bi internet bu info rewmi point com mu mel ni li ñu jagle woon ci waxtu euh, daanaka dab nanu mbokk yi mu mel ni dañuy fas yéene yëkkati jotaay bi di jox dig daje euh, jëmmi jamono ak El Hadji Modou Cissé si seen jotaay Wadduha balaa ñu def dara rek dañ koy jox kàddu gi mu daal di tàggatoo xam naa itam askan wi doy lañu El Hadji Modou Cissé looy tàggatoo askan wi. fi tabarakalla xanaa ñaan rek lépp lu si jub nu sante ko yàlla jëla jëlaal fu lu si safaanu ma leen koy jéggalu. di nuyu tey siyaare waat eh, fa tabarakallah umma islam bi yëpp di ñaan yàlla comme nanu yàlla ni nu yàlla maye woon umma islam àddina bi yëpp umandoo yàlla it kàttan nañu ba àddina bi yëpp defandoo benn fe xeydul fitre di ñaan it yàlla nangul nu sunu koor it di dellu di sant di gërëm tey ñaanal Babacar Ndiaye Soda ak ñaanal ko lépp lu mu yéene si inforé mu yàlla kàttanal ko fa ba man koy matal di lay nuyuwaat di lay siyaara di lay ñaanal tabaarakalla Mahmadul Amin yow da nga bokk si ñun muy lu yàgg it di nuyu tey siyaara it képp koo xam ne yaa ngi bëggee émission Wadduha wala ngay topp Mara Cissé maa ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillah waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, téléspectateur bu internet bu info réew mi point com mbokk yi seen mbokku taalibi Mouhamadou Lamine tamit di santaat El Hadj Modou Cissé mbokk yi di ngeen allah buur bi wa taala euh, doole ko defal tawfiq ak taysir doole ko defal najaaxa defal mu yàgg lool yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi waaye itam yàgg lool ci kanamu waskan wi di santaat bu baax mboolem équipe technique bu internet bu info réew mi point com euh, maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ci ànd itam ci wàllu caméra bi ak montage ifra ñu koy nuyu waaye itam bi euh, sëriñ Babacar Ndiaye Soda sëriñ Tini itam ñu ngi koy ziar ci wàllu euh, équipe bi Mouhamadou Lamine Muntaxa itam di leen jox dig daje waaye itam mbokk yi ni ma leen ko faral di wax rek incha allah jëmmi jamono yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na borom bi doole ñu defal jàmm di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa